waaw asalaamaaleykum warahmatullah. Mangi maa ngi nuyoo tey ziar man soxna Astou Boury Mbacké maa dellu siwaat nag fas yéene waxtaan ak askan wi te bëgg nag ñu bàyyi xel li may wax te dégloo ko xel te bañ koo dégloo xol ndax nag la saamaam si ñëpp laxaat doon wax nee na bu noppi dañu naan dafa mer waaye bu waxee ñu ne day xuloo man nag xuloo taxumaa jóg wax li nga ne moom mooy dëgg loolu moo ma tax a jóg parce nasal te fu ma gis luy yàq dinaa joxar bi loolu suñu président de la république di Sénégal bi nga xam ne ñun moom lañuy ñuy jàppale moom la ñu bëgg moom la ñu bëggal ndam sax bu defee loo xam ne jaaduwul dama koy joxal bi ne ko lii jaaduwul dafa yàq parce que nag APR moom kenn ëppalewu ma ci fi ne moom mi moom part bi sax ëppalewu ma ci waxuma laa keneen la am ba des nag mooy am na ay erreur yu fi amoon muy campagne législative yi man ci laa fi njëkk a fekkee campagne euh, élection ci biir ci ci ci biir APR moom fi njëkk a fekk ba ma fekkee it erreur am na fi ndax jiital nañ fi koo xam ne gënalul nit ñi mer nañu vote nañ sanction vote sanction yooyee nag moom laay ragal man soxnaa Soubouly Mbacké mu siwaat bi la yoon te it wax dëgg yàlla bi mu jàllee gis nañu réalisation yi président Macky Sall def ci dëkk bi loolu moom lu nit euh, bon bon bon di nga ne ay la yéwén te moo am ndax sonn na ci dëkk bi te am na fi yéene képp kuy APR tamit am nga yéeney taxaw jàppale président Macky Sall mais nag moom dafa am cat ndeysaan président Macky Sall ci boppam moo am cat ci Touba loola moom catam la kenn mun ci dara parce que ñëpp na dañoo takktoo fas ko yéenee jàppale ku ne gis nga lii laa Touba bi li fi amoon kenn ku ne nag am nga loola naqari waaye dangaa bës sa xol ngir jëmi sëriñ bi waaye bii nag moom damaa ragal ni dafay wuute parce que li tax ma ne day wuute ñun ñëpp dañoo mobiliser wu ñëpp àndandoo ñëpp kenn ku ne jël sa temps jël sa alal def ci ak sa coono ak sa lépp pour dem Eh, tertu ji président Macky Sall ci ouverture campagne am ñun ñëpp ñu dalal ko man li que daj ci mobilisation bi mënuma la wax nu mu toll dama ci sonn tegle naa ñetti fan yoo xam a nelawu ma di wër sancaan yi di yéeg di wàcc di sonn ngir lépp bëgg président Macky Sall am ndam kon nag su fekkee ñun ñëpp dañoo mobiliser wu ñëpp maase ñëpp àndandoo ñëpp sonn ci mais ñu dem ba wax dëgg yàlla président yegg si ñëpp cité kenn ci département bi muy maam Xarim Mbacké pour lan pourquoi je koy cité mon cap mu qui mon cap, je suis mu cap, je suis xaar mu cap, mobilisé man ma man mobilisé Je mobilisé Je ay mobilisé. la bari un homme li ci metti Je man ci xam li ci mais bañu fa joggé na ñoo xamuñu numu démé bañu séppi ko ko ñeneen ñi man man xam parce que man xamna ay lobem xam naa ay façon am xam naa ay jeu am yooyu yëpp xam naa ko foofee mu toog rek fa la lobby yëpp fa la jeu jeu ma nag bëgg a fàttali président Macky Sall ne ko moom bu juumee ñu bari dañuy juum moo ko gouvernement am saa bu ñu juumee ba wax erreur mbaa ñu def erreur dañuy juum loolu ñu bari te loolu jaaduwut ma di ko fàttali ne ko nag moom rek nekku fii di ko liggéeyal ci département bi te ñu bari nag meleti nañu ngir site googu mu ko cité moom képp bàyyi ñi loolu jaaduwul doomu aadama la rek nag day juum ñi ma àndal li dañuy juum la ko waral it xam naa ko man man personnellement li waral affaire boobu am xam naa ko bu fekkente ne ay njabar la na président Macky Sall def attention parce que bu fekkente ne njabar la leen jàpp ñoom ak i sëriñ ba ñoom seen jëm bopp mu boole leen def wenn say lam leen wax moom la ñuy gëm wala bu ñuy jëm si Touba menn maam xarit la ñuy gis ñu gis seneen ñoom njabar ga ñoom la mën a jàpp mais mënul jàpp waa Touba la ma waxoon rek ki lay dellusi nag mën na maa ëppi pexe nag ca kaw waaye mënumaa ëpp pexe ci militant yi mënul nekk kon nañ seetaat li ñuy def bu baax a baax a baax a baax tiitati naa lool nag vote sanction du ma nag magum xamoon naa ko magum waxoon naa ko laa waa période bi ñu ko def nii fi ñu ko defee ñun fi lañ ko waxee ñoom ñoo bàyyi ba ci période bii nit ñëpp sonn nit ñëpp takkatoo nit ñëpp am yéene ci président Macky Sall nit ñëpp bëgg koo jàppale nit ñëpp mobiliser ñu jël ko moom rek cité ko gërëm ko kon ñoom ñoo ko def ci période bi ñun ñu wax ko ci période bi duñ ko bàyyi il faut battre quand il fait ñun fi ñu ko defee rek fi lañ koy wax loolu mooy problème bi léegi nag li ci des mooy man ci sama jëm bopp déjà xam naa ni mu demee kon man sama bopp jaaxalu ma mais dama bëgg ñi nga xam ne keroog bi nga xamee ni métine bi tas na bari na ñoo xam ne nelawuñu dañu fanaanee wootante ba bët set ñii di tëb di dal loola nag day daal di wëlbatiku nag yàq loo xam ne jaloon nañ ko ba defar ko ba am ci yaakaar na président Macky Sall xippiwaat bëtam te xam ne wax na loo xam ne mën na koo yàqal fii ci Touba. te wax dëgg yàlla kenn ku ne gis nga li Macky Sall jëf ci Touba ñu ñëpp ñu dajaloo fas ko yéenee jàppale wax dëgg yàlla ñëw na ah buux nañ ko wax loo nañ ko loo xam ne waru ko wax wala xëy na muy njuumte loolee nag mën naa indi vote sanction nañ ko xoolaat baax a baax man soxnaa su buri Mbàkke nag waxati naa su ma waxee nag ñu ne lu tax mu wax su ma waxee ñu ne mamaa bi du mama bu wax kon nag nañ seggaat suñ bopp te seetaat suñ bopp bu baax a baax ñun waa APR man nag àpp naa ko fii ba ñu ne suba la parce que nag di jàppale nit di sonn ci nit mbooloo mu bari takktoo taxaw di jàppale nit yow nga taxaw gërëm kenn mais moom bu ñu ko jàppalee ba mu gañe est-ce que du taxaw ne maam Xarim Mbacke moo ko tax a gañe Touba ñun loolu dañ ko seetaan ñun waa APR ndax du dëgg du yoon man de man soxnaa Soubène Mbacke aw ma di lu neex gërëm naa Macky Sall nag sant naa ko parce que li mu def ci Touba amul benn président bu moo sa taxaw def ko fi mais nag am na ci loo xam ne ça ne se fait pas que nag coono boo gis rek jaajëf da caa baax loolu daal laa woon naa ko yëgal askan wi nañ ko bàyyi xel te président Macky sàll bàyyi loolu xel moo ko gouvernement li ñu leen gëlëmale ëpp na saa foo leen fekk ñoom dañ leen di gëlëmal am na loo xam nag jaaduwul te man d'accord ma ci tey d'accord ma ci ëllëg te bari naa ci nag ay morom loolu rek laa doon yëgle wasalaam